Et pour garder la ligne. booy léeg-léeg euh, <laughs> Adja yaa ngi dugg fu neex gis naa fan yi ci réseaux sociaux yi ñu def Bijou dafa def chirurgie xaw ma lan. si kanamam xaw ma lan. non non non non non moi moi moi Cynthia mooy make up make up bu nice mais quand même euh, euh, xam nga poids dafa dafa xaw a dafa xaw a soof. Mm-hmm. et que boo amee yaram pour ay feebar bari ci yow dafay yomb. donc xam naa ni sa émission laa koy waxee. après réseaux sociaux yi dinañ ko dagg daal di koy dugal wax lépp euh, d'accord j'ai fait euh, euh, ballon gastrique laa def pour réduire sama estomac wàññi lekk yi wàññi yëpp manger peu et mm-hmm. pour am pour garder benn taille bi donc mënut a ñàkk mm-hmm. merci beaucoup bi nga demee États-Unis non non non non non loolu je l'ai récemment mm-hmm. d'accord